jërëjëf mbokk yi nga xam ne yéen a bàyyi xel fii ci Dakar live nañ koy defee saa su di dalal boroom xam-xam yi ñaar ñi jàkkaar lool nee naa kenn dootu leen présenté mooy les jumeaux man maa nee naa leen mooy seexu yàlla yi eh, saa suñu ne suñu borom dogal dañuy def a révélation yoo xam ne saa suñu waxee ñu teg suñu bët wala li ci ëpp dinañ ko gis ndax eh, dañ koy waxee rek lépp mu am suñu borom ko mën te ñoom saa suñu waxee li ci ëpp dinañ ci teg suñuy bët tey ñu fas yéene séq ak ñoom waxtaan waaye balaa boo doom leen di bàyyi ñu nuyoo sëñ Amadou ak sëñ Ibrahima damay bàyyi rek kenn eh, tàmbali. <laughs> baada auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammadin alfatih alqatim anazil alhadi ila siratillahi almustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdaari azim mbokki àdduna ñu nuyu képp ku ñuy seetaan di leen ziara di leen jox si wàccuwaay di wa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ Malick xam naa tey moom baat bi sax dafa mel ni dana xaw a euh, ñu baal ñu ci ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan. Mm-hmm. ndax sonn lool. Mm-hmm. jógee ci zone ziar bi. Mm-hmm. ziar général bu Léona Niassène bi nga xam ne ni ki démb ci samedi ji lañu ko doon def. barakallahu moo tax boobu ba léegi xam naa euh, profito rek. gërëm ak sant mboolem ñi nga xam ne teewoon nañ fi. Mm-hmm. waaw mboolem nag ñëpp ci góor ak jigéen mag ak ndaw ñiy jullit ak ñi dul jullit mm-hmm. sant nañ gërëm nañ di ñaan yàlla lépp luñ fi ñaan rek yàlla na yàlla nangu ko bi jaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam alamin jërëjëf kon nu nga joxama sëñ sëñ ma bàyyi la nga nuyoog ñi lay seetaan euh, baada auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiya sayiduna wa habibana wa qudwatana muhammad ibn abdillah rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ñu ngi nuyu mboolem internet yi ñuy seetaan ci réew mi ak ci bitim réew di ci nuyu góor ñi di ci nuyu jigéen ñi di si masawu coono ñëpp ci ziar général bu lew na ñu seen bi nga xam ne tubaarakallaa mën naa wax ne lu mat juróom-ñaari fan a ngi nii jot ñu téléphone yombuloon mhm. euh, ñi ciy masawu coono ñëpp xam ne rek bis bi moo ñu ko moo ko laajoon ak moo ko tolloon mhm. ak li ci xew ak yëpp waaye alhamdulilah rabbil alamin xam naa ne dinañ ci gën a waxtaan yaatal ci bu baax a baax incha allah macha allah loolu am na solo Serigne Amadou ak Serigne Ibrahima ñi seexu yàlla yi euh, ni nga ko waxee léegi ziar général lew nañu seen mhm. te yàlla dogal na ñu yegsi ci ci jàmm mu jàll ci jàmm ñu ñaan lépp luñ fi ñaan suñu borom nangu ko euh, leneen li ci topp mooy dégg nañ seen waa ji ñëw fi muy mhm. sonk Sonko te yéen ñaar ko leen xam-xam leen ak Sonko mhm. coow li bari woon dina ñëwum du ñëw mu ñëw mbooloo mi bàbbeeku ñëw ci moom ba ni mu demee coow li desaat ci eh, famille bi naka ngeen jàngatee loolu. waaw alhamdulilah rabil alamin xam naa ne loolu moom ñi nga xam ne dëkk nañ ci kërug sëriñ. Hmm. ci kër yu mag yi ci Sénégal yëpp loolu du leen jaaxal. Hmm. ndax euh, Sénégal moo bindoo noonu. Hmm. Euh, toujours dafay am ñu ànd keneen am nañu fi ànd ak euh, président Macky Sall. am na ñu fi ànd ak Khalifa Sall. am mm-hmm. na ñu fi ànd ak Ousmane Sonko am na ñu fi ànd ak Déthié Fall. Mm-hmm. am na ñu fi ànd ak ku nekk. Mm-hmm. kenn ku ne nekk sa sa leader suy ñëw. yow da nga fexe ba nga xamante ni ki nga faral suy ñëw da nga fexe teeru ko ni ñuy teeroo buur. teral ko mbooloo mi ñëw mu toog def discours discours buy jariñ ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk say militant ak ñooñu. ñeneen ñi nga xam ne ne nag bokkuñoo ak ñoom pas-pas wala bokkuñoo ak ñoom gëm-gëm ci wàllu politique. xaj na ñoom dañuy am sabotage. ciy def. waaye loolu la woon waaye nag xam nga lu ci gën garaaw hmm. mooy mbiru état dafa xaw a doy waar hmm. euh, xam nga président Ousmane Sonko jamono jii nii fépp fu muy dem ak hmm. képp ku muy seeti xaj na état ñooñu ëpp information jot nañ xam ñoom tamit ñi nga xamante ni ñoo nekk fii nekkal fi ñooñ état ji nan la ñuy euh, sabootee yëf yi ba du réussir waaye ñëw geeg ñàkk ñëw gi loolu ñoom ñoo ko waxoon mais xalif bi musul taxaw ne président Ousmane Sonko du ñëw. ndax moom njaaxaanaay la tëddee. Mhm. maam El Hadj Abdoulaye Niass radiyallahu anhu njaaxaanaay la tëddee woon. Mhm. maam Khalifa Niass bi mu ko wuutoo 1922 la ko wuto ba léegi keroog bi ñuy watee ñi ngi ñuy nettali ne béréb bi ñuy toogee ci diggante président lemin Gueye ak président Senghor. Mhm. ñi watee ñun bi ñu fi nekkee man sam papa boo boobu nekkagul xel xalifa waaye moom moo doon jàppale président Senghor. ci fii ci ci bi. Euh, bi mu fi indi Senghor. nii la meloon ak Lamine Gueye am na ñu bokkoon ci famille bi ci Lamine Gueye lañ àndaloon ak. Mhm. def noonu xaj na ay coowoon te xaj na jamono jii dafa toll waaye xalifa bi musul taxaw ne. kii bu fi ñëw kii bu mu fi ñëw. Mhm. musul am loon ndax moom jaaxaanaay la tëddee. Mhm. waaye nag ñenn ci njaboot gi ñoom ñooy dem ut ndàngam dem fexe lijjante ay këyit def nii def lu ñoom ñoo koy def rek moo tax bi mu ñëwee. président Ousmane Sonko su fekkoon ne xalifa bee ko wax loolu xalifa bi du ko recevoir biir këram mhm. mais xalif bi nga xamante ni foofu la xalifa bi di recevoir yi mboolem kii fi la ko xadd fi la ko porte parole bi recevoir mhm. ci biir kër gi xaj na boobu fekk na sëriñ bi am ci num heure bi mu ñëw mhm. am na heure bu mu teeloon a ñëw dina fekk xalifa bi pare li mu doon pare pour man ko recevoir waaye heure bi mu ñëw ku ne xam na ne ab tijaan ak kurusam su xasee ba julli tàkkusaan téye kurusam xalifa bi ku mun di doon soo ko doon indil ay milliards ak wàllu yu bo ak koo man di doon kilifa ko man di doon soo ñëwee doo ko fekk ndax da koy fekk mu tëju téye kurusam mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. président Ousmane Sonko nag jamono yi muy ñëw dafa fekkoon kalifa bi toog téye kurusam ndax julli na taksaan ba pare war a def war a def euh, ay wérdam war a def ay yi nga xamante ni mooy aw ay lawraatam loolu da koy def ba timis rawatina ci bis boobu nga xam ne ñi ngi war a dëgmal nag ziar bi mu war a ñaan kon yaakaar naa ne du am jot pour génn loolu rek a moo tax waaye ki ko doon waxal moom ñun ak moom ñoo bokk benn pap mooy alaaji ahmed xali alaaji ahmed babacar mhm. di porte parole bi kon yaakaar na su ko dalalee rek dalal na mhm. te président Ousmane ko rek li mu wax yi leer na mhm. euh, ku dégg discours am xaj na ñun bëgg ñoo fës euh, ku dégg discours am daal da nga ne alhamdulilah nee na su doon xalifa bi dafa wax ne président Ousmane Sonko bul ñëw sama kër mu ne nee na du ñëw waaye su ne bul ñëw si jumaa ji Ousmane Sonko nee na xam na ni xalifa bi du ko aayu jumaa ji ndax jumaa ji wa annal masajida lillahi fala mm-hmm. tad'u ma allahi mm-hmm. loolu moom yaakaar naa leer alhamdulilah jërëjëf sëñ Ibrahima damay ñëw sëñ Amadou moom it euh, mu ñëw ci leeral yu ndaw rek waaw coow li bari woon na ci loolu mm-hmm. ñenn ñi ba am lettre boo xam ne bindoon nañ ko def ci tam tampon wu xalifa bi ne moom moo wax ni Ousmane Sonko bu mu ñëw ca ginnaaw ga ñu génn weddi ca ngoon ga président Sonko ñëw sa jàngat ci loolu. wallaay tabaarakallaahu Cheikh Ibrahima wax na wax ji yëpp. Mm-hmm. maanaam euh, ziyaara bi. Mm-hmm. moo toll noonu. Mm-hmm. te xam nga li ci gën a yéeme mooy. gis nga lettre boobu sëñ Ibrahima wax na la ko maanaam donte le ne entetu xalifa bi lañ bind waaye xam nga xam nga xalifa xalifa général de law nañu seen boo liiree euh, lettre biñ bind français lañ bind boo demoon ci xalif bi tey war ko ci liir loo dara du ko liir arabe lay liir Mhm. boo doon dem ndax moo ko bind bindut ko mhm. boo xoolee tampon par machine la mhm. xalif bi amul jotu dem di tamponné fenn naan ko bindal ma lii waxal ma lii loolu rek firnde la ci cachet xalif bi maanaam du xalif bi kese moo am sañ-sañu yor kon ndax xalif bi sax moom pour muy jël ay cachet naan day cachet sax déedéet euh, kon njabootam ñoo koy yor euh, duñ leen duñ leen balaame xëy na ma lu tax ñu def loolu ndax Euh, itam ñun ñi nga xam ne waalew nañu seen jeunes yëpp hmm. nga xam ne xamee nañ leen tey ci donnu seeni maam donnu seeni baay ci teg tànk fa hmm. ñu nekkoon hmm. ci dëgg fuñ gis dëgg rek ne dëgg ngi fuñ gis itam ku ñuy néewal doole ñu taxaw ne du fi amee fuñ gis itam kuy taxawu réew mi it ñu jóg tee seeni kurus ñaanal ko ca yàlla ñooñu ñëpp wallaahi alazim ñëpp président Ousmane Sonko lañ àndal te ñooñu ñëpp dara ñoru leen lu dul maam Khalifa Niass dara ñorul leen lu dul ziyaare bi mhm. te yëg nañ ne Ousmane Sonko mii yëg na ziyaare bi xam na dayoo ziyaare bi dana ñëw ci ziyaare bi mhm. léegi ñi nga xam ne nag ànduñ ak Ousmane Sonko président Macky Sall ñëwut ci ziyaare bi mhm. léegi nag ñi ànd ak moom wallaay bu Ousmane Sonko ñëwee ci ziyaare bi mooy ndam di bu boobaa dañ naan ñun am nañ ndam président Macky Sall waroon a jiitu ndax moom moo yilif réew mi ak lu mu xat-xat-xat ak lu mu ñàkk-ñàkk-ñàkk jot moom dafa waroon a teew loolu mooy liy dëgg loolu mooy li dëgg parce que moom falut boppam askan wi moo ko fal mm-hmm. te gis nga bu fekkoon ne ziare bi dafa tomp tombee woon ñu naan élection yi gannaaw suba la gannaawaati suba la moo fii njëkk mm-hmm. te bu ñëwee moom kenn du ci yem mboolem ministère am danañ ñëw mm-hmm. mboolem député am danañ ñëw mboolem euh, directeur général yi danañ ñëw waaye dara gisoo ci kenn léegi nag yëg nañ ne Ousmane danañ ñëw ci yëg yëg nañ ñëpp gis nga. at bokk na ci yëg nit ki. waaye mooy foyee nit ki. Mm. mooy foyee nit ki mooy caaxaanee nit ki mm-hmm. léegi nag comme Ousmane yëg nañu mm-hmm. ñun comme niñ ko yëgee mm-hmm. moom dina ñëw ci siyaare bi yëg nañ ne dina ñëw yëg nañ ne ñoom seeni leader du ñëw bu boobaa nag ah wallaay ña ca doon jéem a xaw a des néew danañ wëlbatiku kon ñëw bu boobaa danañ ne ah yii nuñ ko mën a saboote nii rek lañ ko mën a saboote mais ci loolu ci euh, daf ci am wax ju sew joo xam ne am na ci ban ciy tudd doomu xalifa bi ne moom moo bind bataaxal bi moo ko tamponné ndax tamit euh, këru kër war nañoo impliqué wu ci politique ba mu ba mu fës ci noonu. loolu duma ci duma ci sori. Mhm. ndax doomu xalif bi. Mhm. sunu sunu sunu sunu mbokk la. Mhm. sunu doomu baay la sunu xarit la. sunu lépp la. ndax ak lu mën di xew. suñu paree nii mën nañoo dem léegi bokkaat ak moom garam place waxtaanaat ak moom. luy jëmale kër gi ndax lépp luy jëmale kër gi bu ñuy buñ koy waxtaanee ñun ñëppay bokk toog. waaye lépp luy politique na buñ koy waxtaanee Mm, kenn ku ci nekk ñay far man nag politique ma comme ni ma koy waxee. Mm-hmm. man man politique ma politique gaanu ma defu kenn amut maqaama wala dara jay jël di ma yóbbu ci ay mitin wala dara. Mm-hmm. man li ma xam bu ma la naree demalal ci mitin dama lay toogal ci sama sajaari teel la mm-hmm. teel la kurus ñaanal la yàlla man loolu laa faree loolu laa man man ak sëñ sëñ Ibrahima. waaye ay dem mitin ak ay dem sàngam moom amuñ jotam. dëgg yàlla amut dara bëgg nañ réew mi nag. duñ wax maanaam ñiy dem mitin lu tax déedéet kenn ku ci nekk ak tolluwaayam mm. kenn ku nekk ak fam fare ak fam manee mm-hmm. loolu mooy loolu mooy loolu moo tax ñun fee lañ faree fee lañ manee mm-hmm. waaye ñun ñi bind leetar bi wallaay waxu man awma ci kenn problème duma ci yedd kenn du ma ci kee kenn wax naa la li tax xëy na mm-hmm. gis nga bu fekkoon ne tey ñi nga xam ne man mii nga xam ne ak sëñ Ibrahima ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne fuñ toog di wax ci président Ousmane Sonko buñ ne woon euh, président Macky Sall ñëw na ci ziyaare bi wallaay ñoom ñooñu dañ taxaw ne Ousmane Sonko ñi fi ànd nag moom ñi ngi nii wax ju bari te Ousmane Sonko yëgul ña seen ñëwut mm-hmm. danañ wax loola konoon mm-hmm. te bu boobaa ñoom itam dañ ciy am raison mm-hmm. ñun itam kon noonu la demee rek ñoom it comme nuñ ko mën a gàllankoor rek konoon ñun itam nuñ mën a sabootee konoon boo ñëwoon tey laaj ma wala nga laaj ki nga xam ne moom gisut ne Macky Sall mi war na fee ñëw wala yëgut ko konoon moomit it boobaa noonu neneen lay waxee rek loolu la waaye ñooñu euh, xëy na euh, ñi ngi ñaan daal kërub diine yi comme ni nga ko waxee wàllu politique ñu ñu ñu bañ cee dugg ñun wallahi politique taxut ñuy wax. Hmm. ñun faraluñ Ousmane Sonko. Hmm. ci ay taxaw pour faral ko pour politique déedéet. Hmm. dañ koo faral ngir néew doole gi nga koy néewal doole pour ñu dooleel ko. te loolu mi ngi fees mi ngi feeñ. ndax Ousmane Ousmane Sonko bo amutoon ñu koy taxawee ci zaahir wa baatinan. wallahi konoon heure bi kenn waxatul ko. waaye ñun foofa lañ fare kon ñu ngi bàyyiloo xel mboolem këri diine yi. ci wàllu politique ni ko suñ maam yi doon defee nañ ko ko defee. mooy ku ñëw rek. ñu ñaanal la yàlla mmh kuñ gis ne yow yaa baax ñu taxaw ne ah jàppale la sëriñ bi wax na ko léegi sëñ Ibrahima sama papa man bi fi Senghor di bëgg réew mi daf ko mmh. jàppale mmh fa ñuy wax jaaga moom moo ko ko may di sept kilomètres carré Senghor président Senghor moo ko may lu tax mu may ko ko dafa gis ne kii daf ko doon jàppale te sama papa amul benn Senghor mosta am maqaama wala daraja mu dajale mbooloom ci biir kër sax naan leen Senghor mi laa àndal wala wooteel leen ko déedéet mm-hmm, mm-hmm. ci liñ àndee ak Ousmane Sonko noonu la àndee ak Senghor mm-hmm. comme xam nga fi mu ne adduna bi yëpp xam ne ñun ñi ñi ngi ñaanal Ousmane Sonko moom itam noonu la woon rek ba Senghor yëg ne kii ya koy ñaanal bi mu ci jotee ci réew mi mu delloo ko njëkkal xam ni kii baykat la liggéeykat la mu jox ko àll boo xam ne ne ko yow ak say doom ak say taalibe dem leen fa la demee kon daal bi Sonko yegsee mhm. mbooloo mi topp ko coow li bari mhm. eh, moom ci biir kàddoom sax mu ngi naan bëggewu ma ko woon nii ndax dama ne woon duma wàcc oto bi fekk gone yu bàyyi mhm. loo xam ne la suñu borom ko Mmh mmh waaw xam nga ñun jot nañ ci ay coup de fil appel yu baree bare bari boobu na tombeek na ñun ñi ngi def euh, li nga xam ne mooy bernde yi nga xamante ni ci lañ waroon a taxawu ay gan ndax suñu maam xalifa dafa waxoon ne yaa biidu yaa suudu yaa orbun wa yaa ajabun ñu ne lu tax mu ne faxtu ilayya li ab si wirdi wa diini maa ngi woo nit ñu weex ñi maa ngi woo nit ñu ñuul ñi maa ngi woo nit ñi nga xam ne dañoo xeereel léegi na président Ousmane Sonko ci nit ñi nga xamante ni maam xalifa woowoon ci lañ bokk léegi nag président Ousmane Sonko bi mu fi ñëw dafa fekk it mbooloo xam ne maam Khalifa moo leen woon ci yaa biidu ñoom ñi dégg yaa biidu yaa suudu war a ñëw léegi ñoom ñëpp déggandoor yaa biidu yaa suudu war a tasee léegi nag ti diggante yaa biidu yaa suudu gi yàlla am na kum yëkkati ci biir mbooloo mi jox ko benn pouvoir muy président Ousmane Sonko muy Ousmane su tey taxaw fi armeelu bi ay armeel dugg fa di ziyaare trois heures du matin balaa ma trente minutes nit ñi yokk armeel yi fees dell ak ay nit loolu yàllaa ko ko may loolu doom aadama bu jóg ni da nga koy xeex wallahi lazi da ngay sonn maanaam loolu loolu mayeg yàlla la mayeg nit nag su bëggee nangu noppalu day nangu mayeg yàlla am ñun bi ñu xamee ne lii Ousmane Sonko tey am na sëriñu kilifa diine yu nekk ci Sénégal tey suñu woote woon mbooloo Ousmane Sonko woote mbooloo Ousmane Sonko leen ëpp mbooloo mayeg yàlla am la waaye terewul su dee ci diine la nit ñi diine ji toppee wuñ ko diine parce que dafa am lu ñu ko toppee muy yaakaar ko ci Sénégal te nit ñi dañoo sonn nag ci réew mi parce que euh, ñun ñëpp dama koy faral di waxtaanee léeg-léeg toog di waxtaanee jamonoy ndaw ñu naan yéen a ngi fàttaliku mburu bi muy jar ñetti dërëm juróomi dërëm nga ndékk ndékki ci jënd ci mburu jënd ci mayonnaise juróomi dërëm nga jënd mburu jënd mayonnaise diggante mbiskit ak yooyu ñaar dërëm juróomi dërëm léegi nag booba xaalis yomboon na te booba àll bi yaatu woon na pour nit ñi bay kum neex nga dem ci àll bi bay léegi àll bi ku bëgg bay mënatoo bay léegi baykat yëpp dem nañ Ndakaaru ndax ku dem ci àll ba amatoo tool ndax sa papa su fekkoon ne ñetti tool la am bàyyi fi juróomi doom juróom-ñaari doom suñ séddalikoo ku nekk ku nekk mënatoo am tool léegi ña fa des mooy néew doole ya ji a am dara tuuti bàyyi nañ ko fa dem Dakar léegi nag ñoom réew mi yëpp comme gis nañ loolu gis euh, bilan président Ousmane Sonko ne ah am nañ yaakaar kat ne li nga xamante ni moom mooy euh, li kii Ousmane yi nga xamante ni moom mooy lim teg ci réew mi ah kon nañ ko jàppale pour li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi nekk ñi mën caa génn. léegi li nga xamante ni moom mooy mooy li ci nekk mooy baykat yi nga xamante ni ñi ngi daan bay ci àll bi ci Saalum di ci bay ci Bawal di bay fu ne. Mhm. léegi ñoom banañ seen mbay mi léegi amatuñ tool dem mhm. ndukkumaan léegi mhm. dem Dakar léegi ñi nga xamante ni yàlla dogal na nag président Ousmane Sonko ñëw bi mu ñëwee teg bilan Mmh. ñoom ñi liir ko xool ko mmh. ne ah ñun kat lii suñ ci suñu yàlla dimbalee ba kii yore réew mi te ñi mu waxee ñi am ci yaakaar mu defee ko kon ñun suñ jafe-jafe dana dañ mmh. ñoom i tamit looloo tax suñ gisee Ousmane Sonko fuñ ko gis duñ tàggoog seen sago fuñ ko gis rek duñ tàggoog seen parce que euh, gis nga nit doom aadama doomu aadama la ko gis lu baax topp ko ku gis lu baax atta suukar soo ko sotte woon feeñ léegi tey weñ ñi topp ko ba mmh. jeex ndax weñ ñi mmh. dañoo gis ne suukar baax ci ñoom mmh. soo sotte woon xorom duñ ko topp te pourtant ñoom ñaar ñëpp lu weex la mais dañoo gis ne président Ousmane Sonko xaj na actuellement jamono jii ñu toll suukar la ci comme nit ñi mais président Macky Sall ñoom dañoo gis ne xorom la comme nit ñi léegi nag loolu tax duñ bokk ñoom ñaar waaye nag euh, buñ fàttaliku ne euh, xam naa ñoom ñii moom danaa leen xam nañ lew nañu seen mooy xam nañ seen maqaama. Mhm. muy président Macky Sall. moom mhm. xam na maqaamaay lew nañu seen. Mhm. ki nga na bu waxuma nag transhumant yi nga topp léegi. waaye nañ laaj Mbaye Ndiaye ministre Mbaye Ndiaye. bi nekkoon APR. ci jamonoy Abdoulaye Wade mu toppoon xam na Macky Sall bi mu daan ñëw fii ànd ak Macky Sall. na laaj Cissé Lo Moustapha Cissé Lo. ñii xam nañ ñan ñooy lew na seen. ak ki nga xamante ni am na keneen koo xamante ni nekkoon na Thiès. Mhm. Euh, bi bi bi nga xamante ni. Abdoul Mbaw mhm. gis nga jamono yi euh, bi nga xam ne Abdoulaye Wade dafi nekk ñoom bi ñu fi daan ñëw dañ daan ñëw di làqatu dugg ci xadaratu lew na ñeseen mhm. seen taal tànki neen lañ daan duggee ci bayaalu ñeseen di dox kër Alaaji Ibrahima ba xabru maam Alaaji ba xabru maam Xalifa Ñas fi mu tëdd di dox seen tànk ñoom duñ sol daal ci mmh. bàyyi ci ci ci nit ñu fii duñ ci sore daal parce que xamoon nañ liñ liñ bëggoon mmh. ñëw taxaw ci kanam alaaji ibrahima ne ko ñun de dañoo am mébét ci réew mi wax wax seen i bëgg-bëgg yépp alaaji ibrahima ne leen ah lii ngeen wax de fekkee mi ngi ci yéen danañ leen ñaanal te danañ leen jàppale jàppale nag mooy ci kurus ñaanal leen mooy ci kurus mmh. léegi nag comme defal na leen loolu léegi nag mu ñaanal leen bi mu leen ñaanalee ñu falu biñ faloo del siwaat nañ fi di ko delloo njukkal alhamdulilahi rabbil alamin biñ demee ba di ko delloo njukkal it dem nañ ba mu yàgg ñëw alaaji ibrahima ne leen man di jumaa ji laa bëgg ku ma ko taxawal ñi ñi ñi nekk ci def ci lañ man wax dëgg yàlla nekk ci jumaa ji nekk ci jumaa ji ba fi tollu ni nii alhamdulilah rabbil alamin kon nag su keneen ñëwee nañ ko xam waaye sëriñ si sama mbokk sëriñ si laay wax euh, su ma waxee sëriñ si nag waxuma sëriñ waaye damaa wax sëriñu kilifa diine yi xam ne seen maam yi ñoo liggéey ci réew mi bañ àgg fii ñu àgg ba Sénégal àgg fii mu roon nguur nag suy daanu dana daane ñu bari maa ngi seetaan ndeysaan oustaz Hady Niass ci conférence bi tubaarkalla samedi ñi di ko ci félicité di ko ndokkeel mhm. mu ne na sëriñ si moytu ndax sëriñ si ku ci moytuwul maanaam nguur gi dana la yóbbaale mhm. te nguur nag maanaam politicien yóbbu ko waar garaaw mhm. waaye sëriñ buñ yóbbu waar moo garaaw ndax ëllëg moo tax nañ moytu seriñ si nañ moytu ah alal ak nangam bu leen jaral yenn yi fi ni jamono actuellement nii nii nii ñun sëriñ si xamatuñ suñ bopp ñun mmh nag kilifa diine yi waxal mmh ñun kilifa diine lañ ndax suñu maam yi liggéeyal nañ ñu loo xam ne politiciens yi dañuy jeexal dañuy dem ñun mmh duñ fi dañ fiy deb ba ilaa yow mi diin tey su fi Macky Sall nekkee ñun ñu ngi fi di tedd su fi Ousmane Sonko ñëwee ñun ñu ngi fi di kenn mënu ñoo ter suñ xelaang suñ teraanga ñu ko defal ba pare kenn mënu ko Mmh ku dul yàlla léegi nag comme yàlla defal na la sa teraanga pare beneen nit ñëw bëgg laa yëkkati ay cinquante millions trente millions quarante millions nga bëgg a jaay say def yenn yoo xamante loolu bu mu ko jaral ñun kilifa diine yi mmh nañ xoolaat suñ bopp li suñu maam bàyyi woon mmh suñu maam yi bàyyee wuñu fi li ñuy nekk de nañ seetaat suñu bopp bu baax te ànd ak askan wi suñu wootee askan wi ñooy dagg paas ñii dajale seen i juróomi dërëm ñii dajale seen i ëmb care ñii dajale seen i ay si nganaar indil ñu ko ñu jël ko jëlaat ko teralaatal leen ko ñaanal leen yàlla ay tëflil lañ leen yi def ñu dem kon ñun mm-hmm. nañ xoolaat suñu bopp suñ mm-hmm. politiciens di ñëw indi seen maletu trente millions quarante millions xamuñ fan la alal ji jëlee macha allah fan la alal ji jógee mm-hmm. kon nag nañ xoolaat suñu bopp ñun kilifa diine tabarkaala sëñ Ibrahima loolu ziar bi tuuti dina am lu ma laal ndax day day def saa lu mel ni amee damay ñëw ci sëñ Ibrahima ak sëñ Amadou ñu wax muy Ousmane Sonko day wuy jiwaat le 16 bi bi ñu jëm faaw ma laaj leen ci yéen ñaar ndax li ma ci daan wax yëpp dama koy gis naka ngeen gisee euh, ñëwaatam le 16. tabarakallahu macha allah sëñ Malick hmm. ñu santaat yàlla bu baax ndax ziara bi nga xam ne ziara mam xalifa ñi la mam xalifa dafa jëloon ziara bi muy bis bu mu jagleeloon soppeem ba sangam ba di Seydi Ahmada Tijaani Abil Abbas Sharif radiallahu taala defoon ko muy fajukaayu aajoy jaamu yàlla yi mm-hmm. loolu la ko daan defee mm-hmm. maanaam ziara bi mam mm-hmm. xalifa li taxoon mu sos ko mooy jamono dafa jafe woon métti mmh. woon lool ci nit ñi mmh. mu yëg ne dëgg dëgg dëgg Seydi Ahmada Tijaani mi sërif radiyallahu anhu ndax gis nga li mmh. sëñ Ibrahima wax léegi yàlla mooy tànn ku ko neex jël la ko neex def ko ci moom mu jël Seydi Ahmada Tijaani sërif radiyallahu def ko muy xutbul maktum jox koy maqaamaaki garaat yu rëy jaarale ko ci maamam sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm. ndax dax kullu suyuxika wa zar ana murabbika wa sayxuka al abar mm. loolu la sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxoon sidi ahmada tijaani sharif radiallahu anhu mu yëg ne sidi ahmada tijaani mi mën naa faj soxlay jaam ñi mm-hmm. mu ne ci am na moom buntu di àgg ci moom sañ-sañ bo muy àggee ci moom mm-hmm. di mën wu jox leetar yi jaam yi bind mmh. ci seen soxla yi mu koy jox moom mmh. ngir mu jottale ko boromam ngir mmh. soxla yi jaamu yàlla yi faju loolu la doonoon loolu la defoon muy ziyaare bi muy njariñu loolu bu ko defee bi mu defee loolu alhamdulilah rabbil alamin boobu ba léegi loolu moo ci nekk moo tax ziyaare bu jotee ñun dañ ciy profité xeetu ñaan yàlla gude suñ xeetu kayfiyaati xeetu wirdu yëpp lépp luñ yaakaar luñ doon ci suñ maam ci ñaanee ko yàlla dañ koy def alhamdulilah yàlla itam lépp luñ ciy def mi ñu ciy may ndam kon bu ñu demee ba bisu ziyaara booba bu jegesee lañ daan ñaan ñaanaatoon nañ ko ca lañ daan bëgg itam bëggaatoon nañ ko ca lañ daan xool it xoolaatoon nañ ko ca li tax ma jaar fii yëpp mooy li nga ma laaj la sées bi moo tax moo wax la lii yëpp di la wan rek ne bàyyee wuñ bàyyi wuñ maanaam lañ gisoon rek toog bisu ziyaara bi mu jotee ni ñuy ñaanale doomu yi ñuy yaakaar yàlla jaaree ci ñun di ñu ñaanal ñu leen di duggal xalwaa ki yeneen yi ci aju noonu lañ defaatoon ci wàllu ziyaara bi alhamdulilah rabbil alamina wallaay na na na ñëpp yëg ne incha allah jàmm jañ daan wax ba léegi moom lañ gis bis bu changé rek ñu gis ñu ñu wax ko yàlla nag toujours mën na di changé waaye changé gut mm. wallaay fii ba la see changé gut jàmm jañ ja Ousmane amoon mooy amaat mooy day delluwaat këram nekkaat ci jàmm ñu nekkaat fi wax di waxaat yeneen wax yu passé yu du ci la 16 bi wallaay day delluwaat këram ba rek a ciy amaat wallaay man la wax lii jàmm rek ci amaat lenn ak jàmm joo xam ne toujours nag comme ni ma koy waxee mmh maanaam Ousmane moom xam na mmh gis nga gis nga ñun ñëpp xam nañ ni ko sëñ Ibrahima waxee bu demoon armel trois heures de matin balaa ma trente minutes mu fees mmh noonu la xamee itam ne moom waxtu wu nekk bu ñu indee ay tuuma wala dara teg ko ci daram day gën a yokk mbooloom da koy gën a yokk ay soppe da koy gën a yokk ay daraja woote yi ñu koy woo itam noonu la koy juralaat rek maanaam jàmm la ciy amee ak yëkkati bu ñëpp yaakaarutoon. Hmm. wala yëkkatikuwaat goo xam ne ñiy commencé ñi nga xam ne si sikki sàkk na Ousmane mi est-ce que dana ko doon ak du ko doon léegi tey mu leer nañ ñi ñoom ñëpp balaa bala ñoo wax ne élection yi ni ay ay. Eh, nañ dem déposé jéeg yooyu bala ñoo wax naan ay waxi déposé weer yi weeg gannaaw weer weeg yooy noonu hmm. dana leer ñëpp na Ousmane mii président de la République lay doon li ñuy wax ñun 2024 hmm. bi dana leer ñëpp balaa booba dana nim ñu leeree ñun yàlla dana ko leeralee jaam ñëpp bañ élection yi de daanaka élection yoo xam ne la maanaam pour yeesal lay doon dafa mel ni yeesal ne Ousmane falu na ba pare dañuy yeesali noonu lay demee incha allahu rabbi macha allah loolu am na solo euh, mas joxal ma sëñ Ibrahima sama micro bi euh, sëñ Ibrahima damay damay taxawaat euh, ci li liñ doon wax léegi le 16 bi ni ko sëñ Amadou waxee dana dem dana ñëwaat ndax li tax yéen mooy bëgg ngeen koy wax saa su ngeen ma ko waxee dama koy gis te ñu xool du sax dañuy faral nit ki wala waaye tolluwaay réew mi moo ndax koo xam ne boo ko jàppee dëkk bi yëngu bañ koo jàpp yaakaar naa day gën le siège bi buñ ci jógee mën na cee jaaree bokk ci élection yi wala mu bañ a bokk sa gis-gis. waaw xam nga euh, nguur. dafa am hmm. nu koy nit di faloo te sëriñ su demee ba mënta ñaanal nit ki nguur. Hmm. wala mënta ñaanal nit ki mu ñàkk nguur sëriñam hmm. des na. te sëñ Malick dinaa la xamal leen tey. juróom-ñaari tabatu yedda Mm. juróom-ñaar saaru tabat yadda abi lahab mm. juróom-ñaari tabat nga boole kook ahamun saqakun alahun yesun mm. muy baat yooyu ahamun saqakun alahun yesun am na loo ci tëgg mën ngaa daane nguur am na noo ci tëgg rek sa kurus ngay toog sa biir néeg nga daane nguur waaw baat yooyu di dégg nañ ñu lu am na noo ci tëgg it nga yëkkati nit mu falu nguur mm-hmm. waaw ahamun saqakun alahun yesun ak tabat yadda abi lahab mm-hmm. nga daane ci nguur fal ci nguur léegi nag ku yàlla xamal maqaama yooyu am mmh. na foo ci may ci ay secret mmh. yoo xam ne nii si say baay nga koy jàngee si say baay say maam nga koy jàngee ba dem mmh. am na loo xam ne soo koy wax rek du hasard do du du hasard du lu ñuy waxant waaw léegi nag le 16 bi comme ni ko sëñ Amadou waxee ñu ngi dalal Sénégal adduna bi yëpp seen xel ndeysaan Ousmane moom dama ko waxuma la moom léeg-léeg ma gis nit ñëw ne ma man damaa yërëm Ousmane ma ne ko yow bi may woo man yërëmuma Ousmane man yow laa yërëm ndeysaan ñoom dañ lay woo dañuy jooye jooye jooy da man gis naa ci jigéen boo xam ne France la nekk man musuma gis lii mu ne ma sëriñ bi ñaanal ma Ousmane Sonko su bakkanam naree des ci lii benn doom laa am benn doom hmm. mu tudd Moustapha maa ngi lay ñaan nga ñaanal ma sama doom ji des de Ousmane Sove jol nguur lii xolal lii ndeysaan ma ne ko yow de loo bokk Ousmane mu ne ko mu ne ma wallaahi xamun ma xaw ma ko mais xoolal yaakaar jooju. waa mmh. bitim réew maanaam man man ñoom niñ mel ci Ousmane man daf maa yéem. moo tax li yaakaar jooju ku ko nar a tas wallaahi xamoo luy yàlla. mais est-ce que yaakaar nga ni tamit mu mu yombi comme dem wuy ji ñibbisaa ndax bii passé loolu lañ yaakaar waa gis nañ la ca mujjee xew. waa yàlla xam nga suy defar dara. Mmh. dafa am nu ñu koy préparé. xam nga mmh. tey su julli tàkkusaan jotee. dur da ngay taxaw rek tàkkusaan jotee rek nga jóg ne allahu akbar amoo julli. Mmh. tàkkusaan su jotee dangay ngay jóg yeesali njàpp mmh. soo jàppoo ba pare nga ut mbooloo mooy li gën ñu taxaw leqaam nga taxaw am ku jiite mu julli mmh. noonu la yàlla defee état bam su lay defal dara dafa am lum lay teg num lay tegee ci ay natt ci ay nangam nga dem def noonu ci étape ci étape gënoon na fee métti le seize hmm. jamonoy aji saar bañ indee bañ ne am nañ vidéo am nañ nanga léegi da ngaa déggate aji saar te pourtant ku ne xam na ne dossier aji saar am na jamono joo xam ne ku ne ci réew mi da nga wax ne ah man de Ousmane lii ñu koy jiiñ est-ce que du moom hmm. am na jamono ñëpp ko waxoon hmm. ñëpp a ko waxoon mu xëy yàlla di ko fesetal di ko fesetal di ko fesetal lii ñëpp a ngi naan ah Ousmane tiitan nañ tiitan nii lay demaate comme ni dossier aji saar incha allahu rabbi te su demaatee beneen tëggaat beneen bu bees a ngi ñëwaat beneen dossier beneen dossier bu bees ngi ñëwaat nii lañ koy toppee ñoom ba toog rek xam nga mbër suy daanu day mm. toog rek ne man lu ma daane léeg-léeg nga seetaan lamb ji toog ba mu yàgg nga dégg mbër mi ne man déet lu ma daane kañ laa nii moom pour moom combat bi demagul kon beneen révélation la état suy daanu ah. du xam lay daanu état bi fi ne ni ñi ngi ko ba mu su doon bëree la ñi ngi ko mboot ba pare <laughs> mm. nga xamante ni toy saarka la bekkaay su doon bekkaay koy rapporté mi naan mboot ba dem na ah. waaye nag moom ko ñi ànd ak moom xamuñ ne mboot nañ ko hmm. waaw waaye borom wilaya yi ci réew mi hmm. koo ci dem mu ne la mboot nañ ko hmm. wallahi koo ci dem ne la mboot nañ ko loolu la yàlla dogal noonu la yàlla di doxalee dafa am loo xam tamit bëgg naa cee dugg ah, ndax man nee naa la toog ak yéen ñaar daf may neen ndax li ngeen may wax li ci ëpp dama ciy teg sama bët eh, am na ci loo xam ne waxoon ngeen moom mooy eh, def naa sëñ Amadou la xaw ma sëñ Ibrahima sëñ Amadou mu ne woon am nañ trans ñu transhumé waat ci gouvernement bi dem ci opposition bi jeexagul waaw man maa la ko waaw <laughs> daa mel ni yëf mu ngi ñëw de. loo gis nga gis nga gis nga man xam nga kan laa yërëm. Mm. président Macky Sall ak Marème Faye Sall ñaan ñii rek laa yërëm ci réew. Mm. waaw parce que xam nga lu tax dafa am loo xamante ni nit ñi dañ leen ko ñi leen jege dafa leen ko toppee te gëmuñ leen ko. Mm-hmm. ñoom ñëpp kenn ku ne am na loo waajal. ñun wax na man xam nga wax naa la fi nee naa la ñun ay sëriñ lañ ku ne mm. ñuy ñaan loo. Mm-hmm. kilifa gune danay ñëw suñ kër yi. ñu bokk ci état. ak ay ministre ak ay député ak ay kii duñ nekk fii naan diw ak diw ak diw waaye suñ ron tànk yi hmm. ñaata kilifa ñoo fi toog hmm. taxaw nañu sëñ bi ma lay ñaan nga seetal ma ci xalwa wala riyaada réew mi 2024 kan moo ko war a yor ma hmm. mën a ànd ak moom ñaata nit ñu ko wax ñoo xam ne tii nay ñu ngi yor ndombal tànk lu mag loo xam ne tey suñ démissionné woon tey nii léegi yéen seen émission bi du ngeen ko yeggali ndax da ngeen di dem ci actualité booba te ay sëñ bi loolu doy na waar ay ponkal lañ ay ponkal ay ponkal moo tax keroog bi ma déggee ñu naan euh, audio euh, kii jàll génnoon na mooy jamonoy mois de mars bi ma ne leen euh, xam naa ne ñun suñ doon enregistré ñun suñ suñ doon enregistré audio ñun ñii nii konoon suñ waxee réew mi tas mm-hmm. wallaay suñ waxee réew mi tas wallaay suñ waxee réew mi tas kilifa gunee ñuy woo nag kilifa mm-hmm. gune gune gunee ñuy woo mm-hmm. lii lu am la moo tax ñun léeg-léeg ñu waxee ci wilaaya waaye léeg-léeg ñu waxe ci jëfinu ni nit ñi ci jëfinu nit ñi léeg-léeg ñu waxee ci jëfinu nit ñi te lool lu am la jëfinu nit ñi moo tax président Macky Sall man ko koo yërëm hmm. moom bis buy daanu day wéet a wéet a wéet ba dee dana na dana déedéet billaahi suy daanu dana wéet wéet goo xamante ni hmm. sax nit xam nga mbër su daanoo da ngay ñaari nit suy ñëw booloo mu koy toog su hmm. daanoo ñaari nit koy yëkkati yi waaw Macky Sall bis mi ngi mi ngi def ci loo xamante mi ngi jëm ci loo xamante ni ñaari nit ñi koy yëkkati ah duñ bari de bëri doole guñ ko yëkkatee waaye ñi si def ñëpp fàq nañ dem mais seen teraanga la ñuy mottali rek ak mmh. dossier yoo xam ne dañ koy luwal bañ ko leen ci toppaat mmh. loolu képp la loolu am na solo ma ñëwaat sëñ Amadou ndax ñoom ñaar nee naa la waxtaan bi dama dama ci doyal euh, dama dellu siwaat ci kër kilifa diine yi ku ci mel ni Baye Mbaye MC ñu gis fan yi mu def vidéo dem États-Unis bi mu demee mu def vidéo ni dañ koo seetaan ba état naroon koo sàkkal pexe moo tax mu daw dem États-Unis ndax loolu euh, alalu àdduna jar na ko ba ngay jël doomu kilifa di ko sañaxal ba muy daw di génn réew mi sëñ hmm. Amadou waaw tabaarakallaahu hmm, loolu moom bu fekkee ne lu am la ñu ngi koy ñaawlu lool sax hmm. xam nga mooy li xewoon rek ci sunu ziyaare bi ñu wax la ko te mooy xew ci këru diine yëpp président Ousmane Sonko gis nga ko buy dem Touba coow li dana bari bu demee Tivaouane coow li dana bari bu ñëwee ñeseen bu demee Medina Baye fu mu dem coow li bari parce que état dafa am rër boo xam ne tubaab yi ci sunu jamonoy maam mmh. Seydi El Hadji Malick radiallahu taala anhu gis nga nim defoo woon ak tubaab yi mmh bu fekkoon ne jamono jii nii la konoon tey état bi du am doole mmh waaye tubaab ya ni état ni jamono ji état bi amee pexe ak ni sëriñ sii ñu fi tombeeloon mm. bu doon tubaab yooya noona jamono jooja ñooña doon xeexal lislaam bu doon ñoo nekk fii konoon tey lislaam day jeex mm-hmm. ndax ñooña bari woon nañ doole bari woon nañ pexe waaye sëriñ si ñu fekkoon dañoo dogu woon mm-hmm. dañoo dëggu mm-hmm. ñi fi nekk waxuma doguwuñ waxuma dëgguwuñ wallaay tey pourtant ñi fi nekk léegi ñoo leen ëpp teraanga fuuf wax daala léegi sama baay da daan bay ñun ñi ngi bay waaye par rapport ak suñu mbayum baay ñi ngi toog di am teraanga waaye suñ bàyyi pour mu amaan lu muy dundee faw day dem di bay mmh suñ maam faw mu pour mu am lu mu doon dundee faw day dem di bay mmh waaye seen liggéey seen ñaan ñun moo ñu indi ci teraanga mmh mais léegi lu tax teraanga junne fukki junne yooye ñu daan dundee di ko joxe dépasse suñu kër pourtant tey la gën a yomb tey la gën a bari waaye duñ ko xool il faut que ñu xool milliard wala millions yi wala naan sama procès nangam wala sama ah sama kër gi nekk bëgg naa Dakar kër goo xam ne bëgg naa nangam ne bëgg naa passeport diplomate wallahi alazim man day man Amadou Niass day soxla wu ma ay passeport diplomate hmm. déedéet man daal xam nga lu ma soxla sama diggante sama kër ak jumaay lew nañu seen hmm. sama kër ak sama kër bàyyi sama kër ak samay kër bokk hmm. dem ziare wante ñoom foofu moom buñ ma ko naree xañ lépp luñ ma ko nar a jaayee mën naa kaa jënd surtout sama digganteeg jumaa wala sama digganteeg daara ja waaye sama digganteeg njariñ laajal ñeneen bitim réew buñ sa ñoon ñoom ñëpp ñibbisi mmh ndax sonn lañ fay daj waaye moom dafa newoon ci jafe-jafe moo tax mu moo tax moom waxuma moom demam bi de mmh maanaam maanaam mag ñi moo tax may wax mmh kilifa diine yu mag ñi ñuy tuddee kilifa yu mag yi par exemple xalifa généraux yeeg euh, porte parole yeeg yi ci aju ak ñu féetee am kàddu ñoo ñaa tax may wax de waaye waxuma ñun ñii ñuy neewal doole ñun ñoo Baye Mbaye ñoo bokk taxawaay ñoo bokk position waxuma loolu lii del bay Mbaye toujours ñun mi ngi ñuy daal mi ngi ñuy daal waaye kilifa yet xam nga tey xalifa généraux yi yi nekk ci réew waxuma ñoom ñëpp dajee de waaye hmm. ñeent rek buñ ci dajee woon ne damaa bëgg hee nangam am bu état dootu ci tegati baat hmm. far force day am hmm. mais dañ ko doo defu lu dul ñëw di xaar enveloppe nangam sangam amul njariñ nañ taxaw ci suñu liggéeyu maam ñi buñ ko jotee buñ ci buñ ci taxawee wallaay teraanga ju nekk yàlla danañu ko defal lii daal mooy li am waaw ñu ngi ñu ngi koy massawu loolu waaye nag di ko wax ne ko wallaay li baayam liggéey doomu aadama bu ko ko mën a yàqal mmh, amut mmh. barke alxuraani karim képp ku jóg barke Cheikhu Tidiane balaa xam li baayam liggéey dëgg-dëgg wallahi nit jóg mu yëg ne kii mi ngi ñëw di ko di ko song si barke mmh. alxuraan balaa yëg si moom faatu wallahi mag ñi caaxaanuñu woon kanaa bu nekkee ci lu dul dëgg waaye bu newee ci dëgg li baayam ne woon bàyyi ñes ah na na ko nit song ka ko bëgg a wala ko bëgg a xaj mi na dem songi ko wax rek ak pexe Mmh dem jaay waxi dem ay seet ay comme ni ñuy waxee xaw ma nervi xaw ma nangam sangam yooyu rek lañ man mmh waaye wallahi ñi ñiy jël nervi amuñ problème waaye mmh ñi leen di jël nervi pour ñu dem di attaquer sëriñ ñoo ñaa am problème bul yaakaar ne nervi bi dana am problème de nervi bi mën naa dem sax def li muy def waaye yow ma ko ko defloo la <laughs> ilaha illallah doo ko nettali de nervi bi dana ñëw ci sa dëj jaale si la ba pare demaat ci sëriñ ba jéggalu ko alliance billah wallaahi la loolu am na solo waaye eh, xam naa la ñu des ci waxtu sax bareetul am na ci loo xam ne yéen ñaar ñëpp laa ko laa bëgg ngeen am message bu ngeen ci lancé muy la xew ca Tunisie mhm. dem ba eh, racisme maanaam xeebaata ngi bëgg a dugg ñu jàpp sénégalais yi di leen sonal mhm. tey nga doon doomu Sénégal mu nga leer na la am na ay tunisiens yoo xam ne yaa ngi dëkk ak ñoom di saafonte ak ñoom ñoom seenum réew ñi bu nu xataal sénégalais ya fay ne te lépp di Afrique ndax loolu tamit jotul état jóg ci. waaw état dana ci jóg waaye comme li ma la wax ci diine ji rek moo ci ñëwaat gis nga naar yi. tubaab yi yëbuñ leen parce que fonk nañ seen bopp mais nit ñu ñuul ñi maanaam doo xam lan la. doy na waar te Sénégal moo war a gindi nit ñu ñuul ñi te Sénégal pour mu gindi nit ñu ñuul ñi teg leen ci yoon sëriñ si ñoo ko mën a def. xaadimu rasul tey dëkk bu bu ne ci Afrique nit ku weex ak nit ku ñuul boo sañoon am ko. Mm-hmm. tey ci Sénégal maanaam gëdd bi ñu war a jox xaadimu rasul. bu ma mm-hmm. ne xaadimu rasul nag wax naa Alhaji malik si. Mm-hmm. wax naa Baye Niass wax naa Mame Khalifa Niass wax naa ñëpp. gëdd gi leen war a jox joxuñ leen ko xam nga lu tax. Mm. maanaam dañu jàpp ne Amadou Niass mi mën na remplacer bis dana jot mu remplacer Mame Khalifa Niass nañ ko jënd ci alal. muy wax lu dul noonu nañ ko def nangam ak nangam. mu mm-hmm. seetaan ñu. Mm-hmm. bu boobaa ka nekk bitim réew ni naar ba wala nangam daf ciy jaar ne laay xoolal kii ñii nangam nangam te am nañ pouvoir bi daf ñu cay jaaraale xeebaale. Mm-hmm. xeeb nit ku ñuul gi maanaam suñ état yi amatuñ fa doole mënuñ ca dara ci loolu. Mm. parce que waaw ndax tuutal gi ñu gi ñu tuutal suñ mag ña nga xam ne ñoo doon taxaw di xeex der bu ñuul xaadim rasul lim xeexal der bu ñuul. alaaji Malick li mu xeexal der bu ñuul mam Khalifa Niass li mu xeexal der bu ñuul ñoom ñëpp kenn mosu cee bëgg comme li ma la wax léegi kenn mosu cee bëgg visa waxuma la passeport diplomate mhm. ah, sëñ Touba boo ko mayoon euh, euh, passeport jamonoom naan ko dem France xalaatu ko mhm. wa ila bu fay dem lenn rek la dem tuubali nit ñi dëppaat mhm. waaye xelaatut maanaam soxla dara xelaatu ko sax amut ci amut ci alaaji Malick noonu ndax ñoom pourtant jamono jooju buñ ko soxla woon yomboon na ci ñoom ci yi buñ ko soxla woon dana yomboon loolu waaye soxla ko woon dañ doon xeex ngir der bu ñuul taxaw lu ko luy waykat yi way waykat yëpp këru diine boo dem nga dégg way benn waykat taxaw ne yaa ñu yaa ñu tekkil mbuumu njaam ñu ñu mmh. doon teg njaam nit ñu weex ñi léegi nag mmh. nit ña nga xam ne seen maam yi ñoo tekki woon mbuumu ñaam gi mmh. seen seen sët sëtaat yi yeeg yooyu noonu ñoo commencé di takkaan mbuumu ñaam gi loolu moo indi problème bi kon ñun seriñ ci ñoo war a gën a taxaw gis nga buñ demee ba état déminé ñu wallaay adduna bi yëpp ay Sénégal adduna bi nit ñu ñuul ñu lépp waaye gis nga bis buñ demee ba déminé état tubaab yi danañ parce que tubaab yi Sénégal rek moo leen jaaxal ci àdduna mmh Sénégal kese mmh kon loolu ñu ngi koy ñaawlu mmh ñu ngi koy ñaawlu di ci ñaawlu maa ngi xaw ma dëgg eh, Guy Marius Sagna mi nga xam ne mi ngi dem di taxaw di ñaawlu loolu ñu ko ci ñu ko ci indil bu ndoxataal léegi xoolal kon bu boobaa ña ko def buñu yégee ne buñu yégee ab député tegoon nañ ko ci loxo sax dégg nga buñu yégee ne ab député buñu yégee ne ab député député doon mi ngi taxaw di ñaawlu loolu ñu ne teg nañ ko ca loxo léegi ka def loola lu muy wax Mm. mooy moo tax may la état la te état itam euh, euh, sëriñ see ko dooleel rek walaay mm. ñoo ko dooleel rek ñoo mm. dooleel état bi gis nga liy xew jamono jii buñ ko waxee wax dëgg ñi ñuy tuddee kilifa diine yi ñoo dooleel état bi mm-hmm. ndax état bii nii sëriñ kilifa diine yi walaay ñaari xalifa généraux wala ñett buñ taxawoon bokk benn néeg toog jotaay waxtaan rek état dégguloo rek lépp lu mu jàppoon ci loolu lu mm-hmm. bon daf koy bàyyi mm-hmm. waxuma la ñu génnee wax ja de nañ toog rek ñoom yi neen ne dañ moom dañoo bokk añ mm-hmm. état day am problème waa léegi nag te mënuñ koo def kon kay ñoom la ci laa bokk de moo tax ma am sañ-sañ keneen ku ci bokkut boo ko waxee ñu wax la xay waaye ci bokk bu yeboo ñu wax xay waaye nag ci laa bokk xam naa li ci nekk moo man ni ma bokkee lew na ñeseen ni ma fi dëkkee ni mhm. laa dëkkee Touba mhm. ni laa dëkkee Tiwaawa ni laa dëkkee feneen ak feneen ndax mhm. Alaaji Abdoulaye Niass mooy mooy Serigne Touba Serigne Touba mooy Alaaji Abdoulaye mooy Alaaji Malick mooy limaamu mooy keneen ak keneen loolu am na solo sëñ Ibrahima nga ñëw euh, ñëwal tuuti ci question boobu Tunisie la fa xew ak euh, ni ni bundu bu nu xatale nit ñu ñuul ñi waaw ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax Mmh. dafa am sama benn xarit bu tukki woon ci réewi naar yi mmh. Arabie Saoudite bi mu ñëwee ne ah naar de ku ne baax na ne yonentu bee tax sallallahu mmh, alayhi wa mu ne waaye seen jikko jañ mel mu ne yonentu bi daal mooy jàmbaar moom mi yàlla def ab arab mu wàcc ci naar yi ak seen mbonte ak seen iñaante ak seen racisme ba mën faa dajale ay nit ba mën leen a tuubal ba islam yegg fii moo tax soo xoolee réalité Afrique Afrique gu ñuul gi ni ñuy gëmee yonent bi ak ni ñu koy toppee ak lim leen jaral par rapport ak naar yi. moo tax am na ci ñoo xamante ñi ngi topp naar yi ci seen wàllu diine euh, dañoo xamul lan mooy jikkooy naar. looloo tax ñoom ñu topp waaye suñ xamoon lan mooy dëgg dëgg jëkk jikkooy naar jikkooy naar bokkul ak jikkooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi kenn la sidna Bilal alayhi salaam nit ku ñuul kukk la ku ñuul kukk yonent bi taxaw euh, gàddaay jógee màkkatal mukarama dem medinatul munawara ñu taxaw waxtu wi jot ñu war a nodd mu ne sidna Bilal yéegal nodd mm-hmm. loolu ku ko defoon tey am ban nit ban réewu arab nga dem fekk tey ñu war a def discours wala nangam ñu taxaw xëcc nit ku ñuul ne ko def ko mm-hmm. kon yonent bi bokkut ak ñoom sallallahu alayhi wa sallam léegi nag loolu ñu ngi koy ñaawlu bu baax di ñaan suñ état yi gan gën cee jàpp rawatina mm-hmm. suñ doomi réew ya fa nekk ndax ñun ñëpp ay mbokk lañ ñun ña fa nekk ñun ñëpp ay mbokk lañ nañ leen jàppale ñi ñu fekkee ne ñi bëgg ñëw nañ fexe ba xool am na ñoo xamante ne ñi nekk ci àll bu sori parce que ñemeetuñoo génn ñëw ci dëkk taax yi mmh. parce que fa lañ war a daggee seen i passeport fa lañ war a daggee seen i billet avion te mmh. àll bañ nekkoon pour wóoratu pour ñu génn ñëw nañ seet ci dëkk àll Tunisie yi mmh. ñu seet africain ya fa nekk ñi dimbale leen buñ seet rek ci capital bi am na ñoo xam ne mën nañoo ñëw ci ambassade yi waaye na ñoo xam ne fañ nekkati mënatuñoo ñëw ci ambassade yi te bund xatal gune ña ngi koy dund ci ñoom te la leen fa yóbbu yëpp mooy seen réew lañ gisul seen bopp mooy teraanga lañ uti macha allah comme teraanga lañ uti nañ leen jàppale mmh. suñ leen ñi fi bëgg a ñëw nañ leen jàppale ñu ñëw ñi nga xam ne dañoo bëgg ñu toog ñu xool yëf yi ci démocratique ci nga xamante ni mooy diplomatique ñu dox mmh. ko état ak état ñu mmh. xool nan la ñuy def pour jàppale leen macha allah loolu am na solo muy nekkoon euh, waxtaan wi nga xam dama koy séq ak ñoom waaye sëriñ bi duma toog ak yéen tamit ba jog xam naa sax waxtu wi tënk nañu te laajuma leen li nga xam ne mooy soxlay jaam ñi ñaan yàlla ak garab yi nga xam ne yéen a ngi koy jox jaam ñi ñu ciy gis seen bopp lu ci mel ni hémorroïde du ci mel ni tension ballonnement diabète ak yeneen ak yeneen te ngeen def ci yoo xamante ni da ngeen ko defaraat ba mu neex a jëfandikoo maanaam def ko ay comprimé maam ñi xam ne mënuñoo jëli sunguf ngeen defal leen ko ay comprimé euh, bëgg naa ngeen ñëw eh, wax waxtaan ci tuuti ci garab yi. ndax loolu moom mënta ñàkk. xam naa ndax na ñëw ki waaye loolu mënta ñàkk. ren dama ne sëñ Amadou ma ne ko ah sant yàlla suñ suñ suñ jaamu yàlla mi ngi nangu. ah alhamdulilah mu ne ah, ko ren moom ñi ñu ñëwal. ñoo xamante ni ay malaat lañu woon mmh. amoon feebar wër fu ne yàlla may leen ak saafara ñi tane ñi yëg siyaare bi sax am na ñoo xam ne yëgaluñ leen ko sax dañ koo dégg ci rajo beeg dégg dàngam rek daal di dagg ñëw xam nga comme ñun dañoo xaw a jafee jot mmh. eh, ci téléphone Eh, ñoom ñuy ñëw ne woo nañ leen ba sonn suñu wàccee wàcc Kaolack ne lew nañu seen wàccee lew nañu seen foo ne eh, cheikh yi rek alaaji ibrahima alaaji amadou moom danañ la indi mm. léegi nag ñu ñëw fi da ngay gis koo xamante ni wallahi mosoo koo gis maanaam moom mooy toog rek wan la ci téléphone am whatsapp am ne la xàmmee nga photo bi nga ne ah waaw mu la man yaa ma joxoon garab nangam ak nangam wala yaa ma joxoon ñaanu nangam ak nangam ak nangam loolu alhamdulilah suñ kër yi dafa feesoon teel te ñu ci ëpp ñooñ la ñu ci ëpp xamuñu woon musu ñoo ñëw leew na ñeseen musu ñoo ñëwul ñeseen moo tax ñun yëg nañ ne ñun ñi ngi jaamu yàlla ci yooyu yëg nañ ne ñu ngi jaamu yàlla ci ñaan jaamu yàlla mm-hmm. ñun nag te ni ma koy waxee mënuñ dara léegi-léegi nit ñëw sakku gërëm sant ma ne ko bu ñu gërëm gërëmeel yàlla mm-hmm. nañ bokk gërëm yàlla ñun luñ def yàlla la mm-hmm. lépp luñ def mu réussir alhamdulilah rabbil alamin yàlla la suñu papa daf ñu daan wax ne bu leen sagoo xam-xam yàlla may leen ko wala wilaaya wala ak ñaan gu nangu ba ngeen bàkku ci mhm. toujours dee leen delloo yàlla seen njukkal mhm. loolu nag alhamdulilahi rabbil alamin tey ci lañ ne suba ci lañ ne gannaaw suba ci lañ ne mhm. lépp luñ defal nit mu gis ko alhamdulilahi rabbil alamin donte leen nag téeméeri nit yu ñaanal donte leen dana ci am ñaar ñoo xam ne wala ñett ñoo xam ne duñ gis ñaan ndax loolu la yàlla di dogalee noonu waaye li ci ëpp quatre-vingt-dix quatre-vingt-quinze yëpp yàlla ngi may seen càkkute ci ñuy faju ak ci ñuy ñaan la loolu nag du ñu sant yàlla la bu baax baax a baax a baax a baax alhamdulilah mais mais mbaa mbaa garabu ki hémorroïde eh, beeg ngóor bi ñëwaat na gaañ waaw alhamdulilah xam nga moom moom mënul doy mmh ku ne xam na ne liggéey bi dafa xaw a difficile maanaam ci niñ koy jaarale ak traitement yi niñ koy defee mmh du yomb waaye nag alhamdulilah rabbil alamin mi ngi am ah sant yàlla bu baax a baax a baax macha allah eh, sëñ Amadou mu ñëwaat ci garab moom itam eh, am na ci ñaq yu doy waar yu mu yor <laughs> moo tax ne yàlla ñaari seex yi danoo doy waar am na ci loo xam ne du ma tudd ndax bi ma ko njëkkee tudd daa yàqoon sama émission <laughs> mooy <laughs> borom jinne yi <laughs> moo tax léegi dootuma ko dugg tudd balaa ñoo yaakaar sama émission barakallahu xam naa mm-hmm. ñu sant yàlla ci loolu mm-hmm. jinne yi moom alhamdulilah maanaam loolu moom toujours duñ ci wax mm-hmm. naa moo tax ku jëkk moom ngir songu ñu wala dara wala nga ñoo songu moom duggal yow na ñu seen rek laajte ba pare waaw bu dee bëgg nga am jàmm wala dara sant yàlla nag alhamdulilahi rabbil alamin waaw comme ni nga ko waxee ci wàllu garab yi sëñ Ibrahima wax na lépp wallaay man ak moom bokkuñu kër Mmh ku nekk sa kër waaye suñ kër yi dafa fees tel man am na ci gan ñoo xam ne sax ci suba gi eh, demb bi ma leen di wax ci guddi gi pour bi ñu reeree ba pare ma waxtaan ak ñoom gërëm leen sant leen yi di leen yeewi dañ ne ma sëñ bi est duñ mën a toogaat ba ci kanam <laughs> ma leen deet moo xam naa ne bu ngeen toogee ba ci kanam it pour ngeen gisaat ñu day xaw a jafe ndax faw ñu noppalu nag ñun itam mmh ndax lu ëpp weer a ngi nii daanaka ci ñu ngi ci wàccaayu ziar bi mmh nekk ceeg yooyu noonu waaye alhamdulilah ni ko sëñ Ibrahima waxee garab yi Mmh alhamdulilah mi ngi am mais du toujours rek mënuñoo assuré ne toujours dana dana am mmh ndax garab yi dafa nekk garab yoo xam ne liggéey bi dafa jafe mmh ay xob ak i ren ñu jël ko di ci liggéey ba mu nekk euh, sunguf di ci liggéey ba mu nekk comprimé dafay laaj ay laboratoire matériel matériel boobu mu laaj dëgg la am na ñu ngi koy defee mais matériel bi léeg-léeg mu paan léeg-léeg itam maanaam li nga li nga waroon a defar manque li nga war a jaxase pour am ko ndax du benn garab kese xam nga yambu buy defar lem du benn fleur rek lay lekk mmh mu am day ay mmh. dajale ay fleurs yu bari léeg-léeg nga am yu bari ba mu des benn benn boobu xaw a jafe mmh léeg-léeg benn boobu bu ñëwee bari ba léegee beneen jafe loolu moo tax waaye alhamdulillahi rabbil alamin garab yi garab la yoo xam ne képp ku ko jël maanaam yow dootoo ko jëlaat ku ko jël moom dootoo ko jëlaat ndax sa jàngoro dana saafarawu waaye képp ko jël da lay boolee nit léegi nag yow kenn nga nga sóoraale woon mu boole laa fukki nit fukki nit yooyu ñëw fukki nit yooyu bu ñu paree boole laa boole waate kenn ku ci nekk fukk day xaw a doy waat moo tax pour amandoo garab yi toujours rek fu mu toll dafay dafay dafay jafe waaye garab yi alhamdulilah rabbil alamin wàllu ñaan yi itam ko niñ ko daan waxee rek sëñ Ibrahima yi noonu la ko waxee mhm. mooy santaat ci yàlla ñu ngi gërëm yàlla mhm. wax naa la léegi ne la ziyaara nañ ko ñaan yàlla mhm. waajalee nañ ko ci ci ci ay tëju waajalee nañ ko ci sunu kurus comme niñ ko waajalee ci demoon uti ñi fi wallaay ni lañ leen waajalee woon itam ci wàllu ñaan yàlla ak ñi ah. ñëwut ñëpp ah kon kay waaw suñu borom <laughs> waaw eh, eh, résultat yi daal eh, alhamdulilah ñu ngi doon sant yàlla ci doon gis waaye bu dee ñi ngi doon gis quatre vingt hmm. incha allah danañ gis quatre vingt quinze hmm. waaw yàlla nag du da jël cent yëpp moom di ñu jox waaye alhamdulilah at mu jot mu yokkur xaasatan nag ren hmm. ndax ren ziyaara bi dafa nekk spécial moo tax Ousmane Sonko wallaay na gën a am yaakaar ah gën am yaakaar gis nga ren bii Mm. e eh, fajukkaayu aajo gu rëy a rëy rëy aadi ah, Macky Sall président Macky Sall man xaw ma ku koy ku koy informé waaye waru ko woon a tardé mbaaru dalu ci bu dafa waroon a xaccoo nda élection yoo xam ne li ci de bu jaare di del si déwén day fekk ñu naan élection yi waaw day fekk ñu naan élection yi yegsi na waaw te pourtant fal léegi lañ koy fal mu jëm mm. maanaam doo toog bañ ne tey la rek ceeb da ngay dem duggi marché ñëw taal waaye doo dem rek toog toog rek dem léegi-léegi jënd ko lekk léegi-léegi rek nga ñëw képp ñu Sonko nag dafa ndugg si Macky Sall nag ndugg si wut ay waaye buy ndugg si day fekk de añ ba heure ba day passé balaa balaa togg mën naa togg de hmm. waaye balaa togg day fekk gars yi lekk ci bu Sonko bi ba suur hmm. bu tegee mu lambu ah, loolu mooy problème wallaay Sonko man moo tax alhamdulilah moo tax coow li bi xawe du coow sax hmm. waaye werante bi bi mu amee ndax dana ñëw ak du ñëw te maanaam ñun biir lew nañu seen ñun xamoon nañ lépp mmh man ñu baree bari ci internet beeg télévision yi woo nañ ma may ay wallaay ku ko ci bëgg ku bëgg a fekkee booy boo nga ñëw dana ñëw mmh. dana ñëw beneen bi ci des mooy ziar bi Mawlaay Alxaaj Omar Ñas alxalifa mmh. nga xam ne borom allahu akbar borom xaala allahu xaala rasul moom ku ko xam-xam ne caaxaan réew mi ku ko xam-xam ne du caaxaan boo demee ci eh, ibaadu rahman sax ñu ci bari ci seen kilifa yi Alaaji Omar moo leen jàngal imaam Ndaw imaam Ndaw yal na yàlla yokku leeram mm. yeesal yërmaande ci bàmmeelam da ko daan wax mm. jàngee na ci alaajo man ñes ku ko mm. daan seede la ci nit koo xam ne xam ne ni kii lu dul yàlla àndut ak moom mm-hmm. xamut caaxaan moo daan wax ne ziyaara bii de di ziyaara mam xalifa ñes bi képp ku ci ñëw xam nga ziyaara bu mbooloo mi dajee comme suuf la pënd bi day bari mm-hmm. mu ne pënd bi comme dugg ci sa bakkan sa yaram xaraam na safara wallahi lazim te ku ne xam na ne alaajo mar ñes nekkutoon kuy caaxaan war mm-hmm. a ziyaara bëgg cee ñëw taxut see sax taxut see ñëw wallaay bëgg cee ñëw taxut see ñëw de mmh léegi leen nga gis ku dëkk ci dara bi sax ziyaara jot bu bëggoon kaa fekkee dem tukki ñëw naan la laay man ziyaara bi ni ma ko bëggee woon a fekkee waaye man xaw ma sax fa ma demoon lu ma fa uti eh. wallahi lazim waaye yàllaay defee noonu moo tax mmh président Ousmane Sonko bi wallahi incha allahu ndam bu kawe na ñi ñuy suivre di ñu déglu wallahi nañ bàyyi xel liñ leen di wax mmh wallahi liñ leen wax du caaxaan amul dara kenn ku ko tere ku koy teree bokk élection ak ku koy teree doon président de la république 2024 yàlla yàlla kese kot rokk dong moo ko man te dogal na ko signé na ko gis nga niñ signé woon mm-hmm. noonu la yàlla signé yàlla si loolu wax am naa daal duñ ko mën a wax mu àgg waaye daal fa lilahi alhamdu alhamdulilah loolu am na solo eh, suñu borom dogal na ko signé na ko mhm. waxtaan wi amoon na solo lool ndax du ma leen fi tiyaat léegi ndax xam naa yi eh, da ngeen a jóge ci mm, siyaara bi coono yi bari na mm-hmm. tey émission sax xam naa dama leen koo xaw a forcé ndax yéen damaa xamul nu ma leen ndax ndax seen mm-hmm. xam-xam adduna bi dañ koy soxla macha allah mm-hmm. eh, ñu bàyyi la nga tàggatoo bu noppee sëñ Ibrahima tàggatoo waaw kay tàggatoo bi rek mooy sant yàlla comme ni nga ko waxee xam naa ne bu doon ne beneen dëkk wala beneen kër nga ñu bëgg invité moom du mën a nekk waaye comme da ngeen a ñëwoon ci siyaara bi wax dëgg yàlla di suñuy nit Mmh. ngeen ñëw itam te li ngeen doon liggéey ñun ngeen doon liggéeyal mmh. ndax ku leen siifur ci àdduna bi siifuraale siyaare bi mmh. ndax ñi abonné ci yéen tabarakallahu yal na yàlla yokk ko te ñi ngi wax suñuy ñi ñi ñuy seetaan fépp fu ñuy seetaan nañ abonné ci site bi macha allah ndax site bi ci lañ ëpp lu ñuy génnee te boo xoolee li ñuy wax dëgg dëgg dëgg lépp muy gën a wér fii lañ ko waxee woon site bii nii ci laa waxee woon ne maanaam président assemblée la ma ca waxoon mm-hmm. site bi ci la waxee woon ne li nga wax li nga laaj sëñ Ibrahima nga xam ne moom waxoon na ci mm-hmm. ci laa waxoo woon ne dana Macky Sall dana perte ay député yoo mm-hmm. xam ne ensemble ñoo xam ne ci côté am lañ faree woon site bi ci laa waxee woon ne Ousmane Sonko affaire Adji Sarr bi kenn mënu ko cee tëj te kenn du ko ci tëj site bi ci laa même même Mimi Touré ci laa waxe woon li ma ci waxoon site bi daal ci lañ waxe lépp luñ doon wax macha allah kon ñi ngi ñaan képp ko xam ne suñu soppe nga ndax ñi ñu sopp bari nañ lool ñëpp nañ abonné ci site bi site bi daal ku bëgg a wala nga am lu la réer rek ci ñun boo ci mmh abonné rek kon bu ngeen ñëwee ci siyaare bi loolu mmh. lañ xam nag mmh ngeen ñëw ci siyaare bi liggéey ci liggéey bu am solo gis nañ yëg nañ li ngeen ci liggéey xam na xamu leen ne yëg nañ ko waaye yëg nañ ko ndax ñun yéen la ñuy siifur waaw li ngeen ci liggéey kon bu ngeen ñu ñaanee ak luñ xat-xat-xat ndax feeñ na ci waxtaan wi baat yi dee na sonn nañ gémmantu nañ mmh ndax doom aadama lañ dañuy nalaw nag mmh waaye luñ sonn sonn ba ngeen ñu ñaanee mmh. danañ leen may ngir def émission bi te duñ yéen lañ may mais askan wi lañ may kon alhamdulilah ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla li ñu daan ñaan rek bu leen xaddi télévision ngi ñëw macha allah allahu rabbi bu leen xaddi télévision ngi ñëw boo xam ne ku fa waxeewut day yaakaar ne waxeewut xam nga Walfajiri tey bañ ko tëjee ñëpp bi seen site bi gis nga ni gars yi dawee abonné waaw te Walfajiri suñu suñu magu baay alaaji Abdoulaye Khalifa mook suñu baay ñoo bokk ndey ak baay ba Sidi Lamine ñëwee ne ko dama bëgg taxawal journal daf am lu mu am lu mu ko def lu mu ko defal ñaanal ko ne ko hmm. sa journal bii dana lekk mbooleem journal yi ba pare doon télévision lekk mbooleem télévision yi macha allah ba loolaa indi ba site baak nangam sàngam hmm. gis nga ko alhamdulilah falil am ne seen yéen itam seen site bi yàlla na àgg foofu wala yàlla na ko romb sax ci daraja Seyduna Muhammad ñu ngi jéggalu ñëpp hmm. di tëjee rek ci gërëmaat ñi nga xam ne xamee wuñu lu dul ñaan yàlla ñu seq ak ñun loolu ñu ñëw seen mmh. aajo yu faju yi tax mmh. ñu ñëw bàyyi seen yitte yëpp ñëw mmh. ci suñu jaare bi teewal ñu ñu ngi leen di sant góor ñi jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi di leen ñaanal yàlla yal na yàlla defal leen tawféex jaare bi daal liñ ci sàkku si yal na yàlla defal leen ko ñi ñëw ak ñi ñëwut ñi ci dugal seen loxo itam ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla euh, lu ci lu ci lu ci lëndëm rek ñu xam ne euh, suñu gàtt xam-xam la ak sunu coonaak yi ci aju waaye lu ci leer mbaa mu rafet rek ñu ngi koy sante yàlla di ko di ko ko gërëmee wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëñ Ibrahima waaw alhamdulilah gërëmaat ñëpp rek gërëmaat leen comme sëñ Amadou gërëm na ñëpp waaye rawatina ñi nga xam ne ñoo jàpp ci bis bi tabarakallahu réew mi ak bitim réew ku nekk yëkkati na sa alal yónnee ñu ñun daanaka mën nañoo wax ne ay millions lañ ci def waaye liñ ci hmm. def yëpp jaamu yàlla yoon ñooñu ko jox mm-hmm. ak ñi yéene woon it def am na ñoo xam ne am nañ yéene lool waaye seen dox seen loxo moo do jotut seen kër mm-hmm. ñii jógee Gambie ñii jógee Mauritanie ñii jógee Ga Maroc ñii jógee fu ne wax dëgg yàlla ñii sax dagg bee avion wallahi ñëw ngir ñun mm-hmm. loolu ñun ñëpp ñu ngi leen ciy sant ñu ngi leen ciy gërëm macha allah liñ def yëpp it wax dëgg yàlla pour ñoom rek la woon alhamdulilah siise siise yi moom kontaan nañ mbayeen ah, mbayeen yi kontaan nañ waaye comme siise siise yi mbayeen mbayeen yi kontaan nañ ñeneen ñi nga xamante nii nag Euh, ay ajo lañ am nekk ñëw ak ñi ñëwut mmh. ñëpp incha allahu rabbi danañ yëg ñun ñaanal nañ leen ah, alhamdulillah danañ yëg ne ñaanal nañ leen yéen mmh. tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax mmh. ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di a wa axiru daxwaana ani alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu koy defee saa su ne ñoom nee naa la du ma tay di jàkkaarloog ñoom ndax xam bi nga xam ne ñu ngi koy séddale ci askan bi te niñ ko waxee rek ñuy ñaan lépp loo xam ne ñaan nañ ko suñu borom nangu ko te it euh, modeste gi nu àndal ndax boo ci dégg am na ci ñoo xam ne bu doon ñoom la dinañ taxaw bàkk waaye sëriñ boo ne de ku ñëw ne la li nga ma defaloon gis naa la mu ne la bul ma sant bul ma gërëm gërëmal yàlla ndax lu am mooma kon képp koo xam ne bëgg nga leen a jot xaw na noo jafee jot nag waaye boo wootee ci numéro yooyu eh, suñ borom dogalee nga jot leen moom de dootoo ko rëccu di jox dig daje beneen yoon fii ci Dakar live jërë ngeen jëf beneen incha allah